asalaamaaleykum mbokk yi ñuy suivre saa su nekk ci bépp actu ñoo leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëf comme ni ñu amee habitude di leen ko defal saa su nekk di leen indil seen xibaar yi gën a fës ci réseaux sociaux yi tey nag dañ koy daal di ubbee rek ak kawteef bi nga xamante ni moo xew fële na la ci nooto guy jëm ca bésub korite ab xale bu góor bu tolloon ci vingt 22 ans doon wuyoo ci turu Fallou Diop moom moo jël essence rek daal di koy sotti way juróom bu góor bi doon wuyoo ci turu Cheikh di taal briquet bi way juróom bu góor nag ñu daal di koy yóbbu hôpital Ahmadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès waaye dafa fa ay waxtu daal di ñàkk ba kanam waaye d'après témoins yi li nga xamante ni moom moo nakari Fallou Diop ba mu def ñawte fu mu nu mel ci kaw way juróom bu góor bi mooy que ni dafa dëkk di torturer yaayam teg ci tamit nag beneen jabar mayu leen jàmm mayu leen salaam fu mu dëkk rek di torturer yaaya mu muñ ko ñu mënatu ko muñu loolu moo waral kii nii di Fallou Diop daal di def ñaawteef bu ñu mel comme ni ñu dëkkee di ko wax saa su nekk rek Sénégal jamono ji kenn xàmmeetu ko mag rak dañuy rayante yaay ak doom di rayante waajur sax dañuy dem bay rayanteeg doom sax léegi day dem di rayante ak ay waajuram Sénégal war nañoo xoolaat lu fi nekk ndax réewum jullit bu ñu mel ñaawteef fii war na fee mën a ñàkk que di ñaanal yàlla ka dem rek fa mu jëm gënal ko fa mu jóge di ko jaale ay mbokkam te di leen ñaanal yàlla xolu mu ko defee rek dañuy daal di wéyale xibaar ci crise économique bi nga xamante ni jamono ji Sénégal mi ngi koy dund ndax jàngoro yu coronavirus bi ñu ci mel ni homme d'affaires yi ñu ngi koy yëg bu baax a baax ñoom ñi nga xamante ni à chaque fois rek ñoo ngi doon voyager di dem ak ñoom jël seen ay marchandise doon ko jaay seen ay business yëpp taxaw na amuñu ku leen euh, dimbali ba tax na naka ñuy def seen cri de cœur ci journal l'Observateur ci na rek bi nga xamante ni ñoo ngi koy dund waaye tamit jafe bi nga xamante ni jamono ji moo ngi ci seen ndodd ndax jàngoro yo coronavirus bi te gisuñu ku leen ci euh, jàppale waaye dafa mel ni du ñoom dong ñoom ñooy souffrir jamono ji même salarié yi nga xamante ne ñoo ngi ci biir réew mu Sénégal ñoom tamit ñoo ngi dund ay jafe-jafe ndax salaire bi nga xamante ni ñoo ngi koy jot matatul seen ay dépense te soxla nañu ku leen dimbali ku leen geesu ci côté boobu noonu ba ñu mën a matale li nga xamante ni moom moo di seen dund biir kër waaye situation alimentaire bu Sénégal tamit nag war naa tiital askan bi bu baax a baax ndax am na benn expert boo xamante ne yëkkati na ci ay kàddoom du ci wax ci xel bu baax a baax waaye bu ko defee rek ñu daal di wéyal xibaar yi ci korité bi nga xamante ni féete nañ ko ci Sénégal ci weekend bi ñeneen ñi ci samedi bi ñeneen ñi ci dimanche waaye kii nii di xalifu général des mourides Eh, ca bésub korite ba mi ngi yëkkati ay kàddoom di wax ci li nga xamante ni moom moo di jàngoro yu coronavirus bi lëmbee àdduna jamono ji moom daala na ni jàngoro yu coronavirus suñu moom moo ko sàkk kere yo ko indi ko ci Sénégal comme ni ñu créé doomu aadama ku ci nekk ak sa mission ñun nag dañoo dëkk ci di tooñu suñu borom subhanahu wa taala tax na mu daal di wàcce li nga xamante ni moom moo di jàngoro yoo coronavirus pour mu daal di ñuy redressé ba tax na nag jamono ji jot na ku ci nekk nga xoolaat sa doxalin ak sa waxalin te xam ni suñu borom dëgg la dañ koy tooñ di ko jéggalu waaye lii nii di jàngoro yu coronavirus yee nañu ci lu bare bari te ñu continuer xeex bi ba moom mu daal di fii jóge jàngoro ji ba tout redevenir à la tey bu ñuy wax ci wàllum korité bi nga xamante ci weekend bi lañ ko féetee ñii ci samedi bi ñii ci dimanche bi ñu ci mel ni omérien yi ak laayeen yi ñoom nag ñoo ngi ko féetee ci euh, samedi bi ba tax na yëkkati nañu seen ay kàddu rek di wax ci commission bu croissant lunaire bi ñu xoolaat naka la ñuy séentoo weer bi ndax mënuñu concevoir à chaque fois duñu àndandoo du ñu warandoo te Sénégal mu nekk réew mu jullit boo xamante ni ñëpp benn lañu te li ñuy wut benn la donc nañu toggaat seen biir te ñuy xoolaat naka la ñuy euh, séentoo li nga xamante ni moom moo di weer bi ndax fu 20 jotee wala 21 heures rek ñu daan gisuñu weer bi ñëpp dem tëddi alors que mën nañu koo xool ba ci xaaju guddi gi sax mën na feeñ bu ko defee askan bi daal di doon ndax Sénégal la benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar bu ko defee rek ñu daal di wéyal xibaar yi ci jàngoro yu coronavirus bi ci réew mu Sénégal lu toll ci ñetti nit yu ñàkk seen bakkan nañ ko en moins de 72 heures di ñaanal yàlla rek fa ñu jëm gënal leen fa ñu jugee di leen jaale seen bokk di ñaan yàlla naka rek tiis bi nga xamante jàngoro ji mi ngi wëyal duñ ko tekk yàlla daal di koy a gaawee waaye organisation mondiale de la suspendre li nga xamante ni moom mooy essai ci chloroquine bi maanaam chloroquine bi nga xamante ni moom lañu jàppee woon ni moom moo fi nekk gum comme vaccin moom moo fi taneegum ndax boobu ba tey trouvé guñu ni lii moom moo mën a faj jàngoro yu coronavirus organisation mondiale la santé di jël rawul daal di yëkkati ay kàddoom rek daal ni chloroquine bi day sauver des vies donc waruñu koo suspendre benn yoon suspendre ko dina nekk erreur monumentale boo xamante ni waa waa OMS dinañ ko regretter à l'avenir waaye suñu yaay booy Dial Mbaye nekk artiste musicien boo xamante ni kenn dootu ko présenté ci réew mu Sénégal jamono ji nag taxaw na tembe pour bàyyi li nga xamante ni moom moo di musique wala sax lu ci jëm waaye nee na li ko gën a metti ci carrière am yëpp mooy xeesal bi nga xamante ni daal na ko xeesal teg ci tamit nag ba mu bàyyee xeesal nanguwul sax taxaw ci seetu xool boppam ndax fu mu jullee rek day ñaan yàlla suñu borom bi subhaanahu wa taala bis buy dugg ci biir bàmmeelam bu mu yóbbaale benn trasu xeesal la ci yaramam nekk na loo xamante ni da koy réccu ba tax na mu ci alerté waate yeneen xale yu jigéen ñi nga xamante ni jamono jii rek dañoo jël xeesal di ko def ñu xool ci ki nga xamante ni moom moo di suñu yaay euh, Dial Mbaye bu ñu ñëwee ci wàllum sport kii nii di may ñaa nekk ci club bu ren moom nag ñi koy xëccoo ci mercato bi bari na lool ba tax na nee na day rek xool club bi nga xamante ni moom moo ko ci ëppal njariñ mu daal di lekk koy jël waaye club bi nga xamante ni ci la amagum yaakaar ni dina fa dem moom mooy club bu Marseille waaye teewul ni nag neen ñi ñoom ci ginnaawam waaye dina saytu ñëpp xool fi nga xamante ni moom moo ci gën nekk moom moo may ñaar dem fa waaye li wëta wóor mooy bëggatul toog ca club bu ren bëgg na participer ci mercato bi maanaam jóge ci club daal di dem ca beneen club ba tey wàllum sport la ñuy deseni ak yenn ci mbirub làmb combat booy Niang Balla Gaye Tapha Tine Gris E, Moussa Ndoye Sa Thiès nekk na combat boo xamante ni amateur yi xaaroon nañ ko bu baax a baax a baax waaye jàngoroy coronavirus bi daal di ñëw ne lépp ba kenn amatul suytu làmb jamono ji loolu waroon na nag Seydou la nekk manager général bu Ndakaaru yëkkati na ci ay kàddoom te naan saison 2019 2020 jeex na nañ ko nangu waaye 2020 2021 incha allah rabbi dina nekk saison boo xamante ni kenn dootu ko fàtte ndax combat yi ñu mettre en suspens yooyu yëpp ci saison boobee la nar a am. bu ci mel Boy Niang Balla Gaye Tapha Tine Gris Moussa Ndoye Sa ba ci Ama Baldé Modou Lô bu ñu moytuwul ci saison boobu la nar a amee donc saison boo xamante ne la amateur yi lépp lu ñu meroon ci 2019 2020 bi rek dinañ ko kontaanee ci 2020 2021 bi ba tey ci mbirum làmb kii ni di Yékini Junior mi ngi yëkk ci kàddoom di wax ci crise yi nga xamante ni moom moo am ci arène bi nee na dafa jot nag ñu daal xool problème yi nga xamante ni moom moo nekk ci biir làmb ñu wutal ko solution moo gën fu ñu toog rek fu ñu toll rek naan làmb am na problème laala am làmb am na problème loolu nekkul avantage waaye bi ñu topp mooy sponsor yi nga xamante ni nangootuñu sponsoriser làmb mais dañuy sponsoriser ay émission làmb loolu tamit war nañ ko xoolaat waxtaan ak ñoom te xam ni coow li coow li làmb la bu làmb amul tamit émission làmb du neex bu defee ñu daal di wéyal xibaar ci wàllum jàng bekk jàngale bi jamono ji nag professeur ak élève ñëpp a ngi waajal ngir reprise des cours bi ñu war amal le 2 juin incha allah ba tax na nag ñuy préciser war lekk ci Dakar ba que ni professeur ak élèves yi nga xamante ni dañoo amee maladie chronique maanaam jàngoro boo xamante ni dafa nekk seen yaram ñu koy traité te wéragul ñooñu mënaguñoo bokk ci reprise bi ndax ko ne xam ne ni jàngoro yi coronavirus du nekk dëkkandoom ak benn maladie chronique ba tax na rek ñooñu dañuy daal di xaarandi nga xamante ni moo di suñu njiitum réew wala ministre de l' mu xool ñoom naka la def ba reprendre li nga xamante moom moo di seen cours ba xam dañuy toog seen kër a dafa mel beneen kawte fi daal dinay wàccaat ci kawam ndax li nga xamante ni rek moom la journal bi daal di xëy fësal que Diop ISEC agence de voyage am bi nekkoon fële ne la ci dakaar Sacré-Cœur villa numéro 87 81 dañ kaa daal di dàkkee foofu noonu mu nekk ndigal bu jege ci tribunal euh, di commerce dàkkee nañ ko foofu dàkkee fa bépp personnel boo xamante ni dafa daan liggéey ak bépp matériel boo xamante ni dafa faa amoon mu nekk requête boo xamante ni mi ngi jóge ci Mayaar Mbay nekk propriétaire kër gi mu luye woon daal di fay amal agence boobu noonu jamono ji nag moom mi ngi ca kaso bu rëbës ba tax ñi daal di xewee ci ginnaawam waaye nag mbokk yi noonu la demee rek yàlla day takk natu ki nga xamante ni moom moo di jàmmam bi te da koo war a nangu bu ko defee rek mbokk yi dañuy daal di wéyandi xibaar yi ci jàngoro yi coronavirus bi ca bitim réew. di koy ubbee fële na la ci réew mu France jamono ji nag képp koo xamante ni da ngay yëngu ci wàllu médecine yaa ngi xaar avec impatience li nga xamante ni moom moo di ouverture hôpital bu bees bi ñu créé woon noonu rawatina ci période jàngoro yi coronavirus bi waaye tamit nag am na loo xamante ni taxaale nañ ko Macron mi nekk seen njiitum réew ci mesure sanitaire yi nga xamante ne war na koo jëlaatu waaye dispositif yi nga xamante ni war na koo matale jëmale ko ci ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy personnel soignant yi ndax seen vie moo ngi ci risque donc wala ñuy mëna dugg ci hôpitaux yooyu ba continuer li nga xamante ne moom moo di seen métier rek kii nii di Macron na leen tekk ci condition yoo xamante ne moom moo di dalal seen xel ndax ñoom tamit dañoo am famille boo xamante ne moo ngi leen di xaar seen kër toog nañu ay weer weer yoo xamante ne dañoo confiné woo ci hôpitaux yi weel xibaar yi fële na li ci Amérique latine jamono ji nag nekk na épicentre de l'épidémie ba tax na ñoo ngi ci presque lu toll ci quarante mille personnes yoo xamante ni ñàkk nañu seen bakkan ci jàngoro yo coronavirus bi saa su nekk seen ay cas day gën di yokk dem nañu sax ba ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor wàll wàllum sécurité sanitaire bi na la ñu ndax lu ci ëpp guddi gi dañ leen di woo ci ay cas suspect bu jàngoro yo coronavirus sax ñoom tiit nañu tiit boo xamante ni gis nañ ni jàngoro bi fa mu tàmbalee woon sax nekkoon na réewum Chine ñoom mën niñ koy dundee jamono ji réewum Chine dundeewu ko nu nu mel à part euh, Amérique ca euh, état bu New York ñoom jamono ji ñoom ñoo nekk ñi nga gën a xamante ni ñoo gën a sonn ci jàngoro yu coronavirus bi. waaye fële na la ci réew réewum Espagne débuté nañu li nga xamante ni moom moo di seen déconfinement ci Madrid ak Barcelone ginnaaw ba ñu tëddee lu toll ci 3 mois jàpp 4 euh, presque ñu confiné leen ndax jàngoroy coronavirus bi jamono ji nag ñoo ngi déconfiné wu nànk-nànk ndax am nañu yàqi ni tan am na ci seen biirum réew waaye tamit nag askan ba fa yeewoo respecté woon nañu li nga xamante ni moom moo di mesure sanitaire yi ak décision bi nga xamante ni seen njiitum réew jël na ko loolu waral na tey ji ñu commencé génn nànk-nànk di déconfiné wu am yaakaar tamit que ni bu ñu génnee jàngoro yu coronavirus bi di déclenché waat ci fi nga xamante ni moom zone yi ñoo libéré. ko defee ñu daal dellu ci réew mu Sénégal tey ci mardi 26 mai 2020 bi ginnaaw ba ñu amalee lu ci test ci ñoom ñoo amee jàngoro yo coronavirus bi mu nekk contact ak 3 cas communautaire benn bi jugee ci Castor ñaari jugee fële ne la ci Thiès kaay lu toll ci cinquante patients nag seen wér-gu-yaram mucc na ay ba ñu mën a ñibbiwaat seen kër yi lu toll ci dix-huit patients aussi seen cas mi ngi grave waaye bu ñu defee bilan bi depuis le 2 mars ba suñu joon yàlla tey ji lu toll ci trois mille cent soixante et un personnes amee ñu jàngare yu coronavirus fi nii ci euh, Sénégal mille cinq cent soixante-cinq euh, guéris. 36 décédés 1559 personnes sous traitement di ñaanal yàlla ñi nga xamante ni rek ñoo ci bàyyikoo fa ñu jëm gënal leen fa ñu jógee di leen jaale seen bokk te di leen ñaanal yàlla xolu muñ waaye ñi nga xamante ni tamit ñoom ñoo tëdd ci hôpitaux yi te amee jàngoro bi yàlla daal di fëgg seen bopp nu mu gën a gaaye ba ñu mën a delluwaat ci seen njaboot gi di ñaan yàlla jàngoro yu coronavirus jóge ci Sénégal waaye jóge ci àdduna wërngal këpp bu ko defee mbokk yi fa ñu yem ak yéen seen xibaaru Actu Net te di leen jaajëfal di leen jox dig daje ba suba incha Thank you.